alaikum amis chers fidèles internautes maa ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte bu baax a baax jano génn fi nga xamanteni rek mom moy VIP people muy chaîne bo xamanteni rek maa la chaîne leader mais aussi c'est la chaîne qui informe juste en temps réel bienvenue dans votre émission toj Yarbi, bi Yarbi yax bi émission bo xamanteni yeen ñi nga xamanteni yeen ñuy sétane yeen yeenako a ko bëggal seen bopp muy émission phare bo xamanteni que rek yeenako a ko euh, muy am tous les mercredis comme nous ma leen ko waxee li ma ko waxee rek euh, cas yi gën a sérieux euh, ci people fii laay toog daal leen ci indil li nga xamante ni rek moom mooy les détails nécessaires tojal leen yax bi euh, ba mu ne tas ne tasar tey nag li nga xamante ni tey moom la ñu nar ba mu ne tasar muy li nga xamante ni rek moom moo am ci showbiz bi diggante démb barki démb ak tey muy Ibro naajoo génn bi nga xamante ni rek génn na ko suba teel ginnaaw malaise bi nga xamante ni am na ko ca bango soirée bi mu doon amal foofu nag natt premier daal dinay euh, bari ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo jege Ibro Nadio itam génn nañ def ay révelation ci ki nga xamante ni rek moom mooy njiital bu subateel boobu noonu di Matar Diop subateel dinaa ci ñëw euh, li nga xamante ni moom mooy génn Ibro man yëgoon naa ko bien avant malaise bi nga xamante ni rek euh, dal na ko keroog foofu nga xamante ni rek moom mooy euh, Bango waaye nag fii laa toogoon daal di leen wax ni leen rek fi nga xamante ni moom mooy subateel musique nekkul label yaakaar naa ni ba leen ko waxee ak léegi l'avenir nous a donné raison ndax nee naa leen fii biay fi people lépp li nga xamante ni rek dañ koy wax rek day fekk nu am ci lu wóor loo xamante ni rek ci lañ koo tënk tax boo leen seetloo li nga xamante ni moom mooy Subatel musique ba mu juddoo ba léegi boo leen defee li nga xamante ni moom mooy analyse ci wàllu euh, showbiz ba label bi juddoo ba tey ci nga gis yenn concurrence yu bëri yi nga xamante ni artistes yi ñu koy defante seen biir ñi féetee boor bi ne duñu dem ci boor bee ñi féetee boor bee ne duñu dem ci euh, boor bee man ma tuddee ko label boo xamante ni euh, euh, maanaam bad buzz la concurrence indi li nga xamante ni moom mooy fitna ci li nga xamante ni rek moom mooy showbiz bi moom moo ko tax a jóg muy label boo xamante ni nii doy na waax li nga xamante ni rek mu ngi ciy am mais man constant bi nga xamante ni rek daal na ko daal dinaa ko ciy def ñëpp mënuñoo yemandoo sikk wala ñëpp mënuñu leen a boolendoo ci benn euh, euh, sac parce que tey boo leen xoolee diggante Omaro Sidi Diop ak Matar Diop suba teel muy ànd boo xamante ni lu dëgg la woon euh, yaakaar naa ni Omaro ràññee woon nañ ko bu baax ci ki nga xam ni moom mooy Sidi Diop ci ba dem na ba bakkan la ko joxoon def ko doomam problème am na seen diggante Sidi Diop daal comment dirais moom Omaro daal di génn ci boobu boobulee label

ni rek moom mooy Matar di ko waxal ay baax baaxam kulaal mata laal ko moom it jékki-jékki nañ dem ba benn moment daal di koy gis mu génn ci ki nga xamante ni rek moom mooy Matar Diop suba teel ba artiste am boobu noonu di uh, Awa Thiès sax ñu ngi ñuy xamal uh, ci information que Matar suba teel ci boppam daf ko daal di recruter déjà loolu nekk loo xamante ni tam uh, je pense que rafetul ci ñoo xamante ni dañ doon ànd Jules nga itam nekk koo xamante ni da doon liggéey ak ñoom récemment gis nañ ko soirée Wally Seck mu yéeg loo xamante ni moom daaw ñu ko mu mel ni dañ leen a tënkoon ci benn euh, mbir te yaakaar naa ne lépp dara wundu ko rek dul ki nga xamante ni rek moom moo jiitee boobulee label parce que moom moo fi indi concurrence moom moo fi indi tey euh, euh, ki nga xamante ni moom mooy Wally Seck par exemple damay jël exemple rek bu génnee tey son mu génneel Sidi Diop ki nga xam ne moom mooy son Wally Seck defar na fi ay bëñam moom mu defaral Sidi Diop li nga xamante ni rek moom mooy ay bëñam muy ay fee yoo xamante ni dañ ko gis ci concurrence amaana sax musique am na li nga xamante moom mooy concurrence mais ni nga xamante ni moom euh, euh, leader bu suba boobu di Matar ni mu ko doon defee doon loo xamante ni jéggi na dayoo mu jaral ko lu ne defante wax lu ñaaw saaga mu nekk ay affaires yoo xamante ni euh, yaakaar naa ni jéggi na dayoo ci li nga xam ne moom mooy showbiz ñi ma leen limal yëpp ñoom lañ doon àndal génn nañ fi nga xamante ni moom mooy suba teel bu ñu jëlee ci ki nga xamante ni rek moom mooy Bambaali Seck itam xëccoon na ko indi ko fi nga xamante ni rek moom mooy labeel bi te ku ne xam na ni Bambaali Bambali Seck ak Mandiaye euh, Seck moom ak Wally ñoo bokk benn baay mais moom Bambali Seck ba mu demee ba xam euh, xàmmee génn na fi nga xamante ni rek moom mooy Subatel musique dem rejoindre ki nga xam ne rek moom mooy frère am ndaxte nee naa leen bokk deret la waaye nag du li nga xamante ni rek moom noonu la ñuy euh, defee récemment Ibro Naajo nag moom moo daal di def malaise comme ni ma leen ko waxee woon sànq rek ma yëgoon bëgg génnam Subatel avant lu ni mel di xew ci dafa jotee ak ki nga xamante rek moom mooy Matar Diop euh, suba teel waaye ñi nga xam ni tam ñoom ñoo ànd ak Ibro Naajo ku ci mel ni Baara génn na daal di wax li nga xamante ni euh, moom mooy ay couac yi am ci biir euh, label boobu nee na nag lépp rek lu jig njaag Matar Diop suba teel moom mooy njaag parce que nag moom li nga xamante ni daf ko warloo ak ki nga xamante ni euh, moom mooy Ibro naajo def ko te Ibro Nadio nekk euh, euh, artiste boo xamante ni c'est un artiste parce que ku ne xam na ni wax dëgg yàlla bu dëgg rek neexee five nu mu koy def benn artiste bu nekk suba teel nekkul di ko fa def maanaam ci bu tëggee soirée ni nga xamante ni rek noonu lay feesee waaye dégg ngeen bu baax li li mu wax nee na li baax loo xamante ni day baax pour naajo dafay préférer bañ ko jox naajo dem si di jóg wala mu dem jox ko euh, Bass Thioung mais yaakaar naa ni tam loolu euh, nekk na loo xamante ni lu euh, doy waar la ci ki nga xamante ni rek moom mooy njiital bu suba teel bile moom tam daal na ci teg nu mu tegee ñenn. ci artistes yi bokk suba teel ci ay conditions yi bien tegeewu ko foofu noonu ki nga xamante ni moom mooy euh, Ibro Nadio en tout cas daal mu nekk loo xam ni euh, doy na waar yaakaar naa ni tam euh, li ma leen waxoon yéen a ngi koy gis par ndànk-ndànk que li nga xamante ni moom mooy label suba teel boobu c'est pas un label mais juste benn mbir la bu juddu di bëgg a def li nga xamante ni rek moom mooy buzz ci li nga xam ni rek moom mooy showbiz bi mais yaakaar naa ni tam bu fekkee sax da ngay def concurrence d'après man li nga xamante ni noonu la bara waxee fofu lay waxee bu fekkee da nga dem da ngay def concurrence na doon dox mais pas ngay def concurrence ci ñi nga xamanteni yow ya len dajale ci benn boîte fassiyene nek nekk leader fassiyene len accompagner di len rivaliser wala di favoriser nek lo xamanteni rek lu rafet la muy analyse bo xamanteni rek man def naa ko fii ci biir VIP people ci li nga xamanteni rek mom mo fi amone di len jox rek dig dajé inshallah allahu rabbi mercredi ci benen tak yàq ak Bintu Rasoul d'ici là portez vous bien restez à nos programmes VIP people nee naa leen boo leen abonné ba noppi da ngeen di bës li nga xamante ni rek moom mooy cloche de notification bi bu ko defee suñu benn programme rek du leen rëcc merci beaucoup